Alaaji Modou Ndiaye Biry buggee wax ci moom dina bari parce que Alaaji Modou Ndiaye Biry e, man dama nekk xaleel dem waali daan fekk ko fa ñu ànd play e, tukki lu bëree man maa moom mu nekk koo xam ne e, ku baax a baax a baax a baax koo xam ne lu bëree bëree bëri la ñu jàngal yooyu noonu biir yi da nga àndaa moom especially man I was very close to him because li tax mooy eh, biñ play Walidaan ba jeexal dama ñëw man maa ñu nekk si technical staff yi Walidaan bi nekk foofu so many years am na benn période boo xam ne ñu ngi dem gaana eh, man maa moom personnellement ñoo bokkoon néeg ak yooyu noonu you know muy ma daan aida ci yu bëree bëree bëree bari ba pare apart from football bi biiri ah, Independence Drive mosque bi every fajar ñun ñoo fa dee daje su aye Banjul ñoo fa dee daje because he was very pious biiri foo ko gis mu ngee juli suñ julee fajar ba génna li ñoo def mooy dañ dee taxaw ci bunti jumaa ji ba pare di waxtaan te li ñoo waxtaan yëpp yëfi football la moom foog naa life am yëpp it was football